suñu makkanaaw moom lañ doon liggéey mais dañoo ñëw démb liggéey ba wàcc dem ñibbi ñu ñoo ñëwee affaire mu birig yi quoi bi ñu ñëwee ñëw toj suñu móol yëpp xam nga yóbbu nañ sama deux keesu urdu yóbbu nañ sama benn keesu quinze ak keesu douze bon pour ndox yi fi nekk bàjj nekk ñu deux ñu ngi ko wër ci ay picc dem bi jaxate lépp dem bi toj ko am na ay poutrelles ak ay planches yoo xam ne demee léegi tey tey léegi waroon yóbbu Touba pour place bi dañoo contrôlé woon mais dañoo fekk finalement dañoo fekk yëpp bi yëpp. commissaire bi moom ak euh, ay éléments euh, bi ñuy ñëw fekk na gaa yëpp daw bi ñëwee gardien bi lañ fekk donc gardien bi sax man man ñëw naa ba filmer yëpp ba pare soo a dox daje ak bi si laa ko laaj koo demoon mu ne dama demoon sama kër su ma ko ci changé parce que gaa yi dañ ma escampé. ma ko si lu mu demee noonu mu ne ma noonu bi ñu ñëwee dañoo def ful ñëw dugg si biir jël peel dóor boo ko ba peel bi damm si laa jug daw dem sama kër su pour changer pour ñu bañ ma xàmmee. lii dafa nekk ak boo xam dañ koy ñaaw ndax waxuma sax bâtiment bi nga xamante ne tëral nañ ko waaye diggante zinc ak poutrelle ak laat rek def nañ ci lu ëpp 3 léegi nag waxuñu tey ciment bi cinquante tonnes dañ fi wàcce woon ak fer bi ak machine yi nga xamante ne jënd nañ ko gars yi lakk ko man nag. li def noonu ñaawlu naa ko trop wax dëgg si yàlla parce que lu mën a ñàkk la station bi dañ fi programmé station ak euh, supermarché ak euh, juma euh, lavage ak vidage et que boo xoolee loolu lépp ak benn multi service loolu lépp boo ko xoolee dina employé quarante personnes te quarante personnes yooyu nga xam ne moom la ñu waroon employé lay doon yoo xam ne Diourbel fii la dëkk